mu doon ku yaru yi ak ku dal madame Loum day Sophie Camara doon taaw ni olof di léebee jëkk juddu njëkk a baax juddoo fii ci ndakaaru doon alpulaar bu fonk cosaanam ca ba muy ndaw bokk na ci li mu gënoon bëgg di futbal ba tax ñu ko doon woowee garçon manqué mi ngay yaroo HLM ci peggu maamam bu lekkool te jaan dafay dem géejewaay ci ay wayjuram ngir def li mu gën a bëgg di football. mi ngi defee primaire am ci l'école HLM 4C ba pare jaar Madiaye Sall ba classe troisième jàngam daal di dakk ndax maamam yorootu li mu koy fayale donte sax baayam yoroon na ko. loolee di gën a fësal mbëggeelu gone gi ci maamam ndax mu doylu lool ci li mu ko doon jox ba bëggul ci daray kenn doon mu doon muxtaas fonk lool tarixam diine bu mu jiital moo tax mu mën a farataal soxna si mu doon ci néegu sëyam ak wareefam ci politique bi ndax gëm-gëmam moo di sa kilifa bu jugee te juguloo sa fayda des na mu nekk taawu nem si yàlla jii di booy bàmbara donte sax way juróom bu góor doon na ki ñu ràññee ci dëkk bi wante taxul benn yoon ndey Sophie Camara yëg boppam ci weeru mars bi ñu jagle jigéen ñi rajo Afia sargal jigéen ju góor ji di madame Lom Ndeye Sophie Camara daanaka seede yépp benn la jëmale ko ci moom ñi sës ci moom rekk ba noppi yaayoo ko ñoom ñi di xujja ak awa doonte duñu ay doomu biiram waaye doy na leen kilifa ndax taxawu na leen a taxawaayu yaay ba ñu xamante ak moom boobaak léegi ñuy seede li ni mel ci jëmm ji. yàgg nañu nag yàgg nañu lool ndax bi ñuy nekk xale lañu xamante ak moom kilifa gu ñuy wax Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy moo ñu boole donc daayira lañu xamante. mu ñuy encadré mën nañu wax ne sax moom moo ñu yar mu nekk koo xamante ni nag ku généreuse la ba alalam du ko boole ak kenn lu mu am bokk kook nit ñi boroom xol bu yaatu macha allah yàlla defal ko nag mën a déglu nit ku am problème boo ñëwee dina la déglu dalal la conseiller la ku yàlla baaxal la ñi koy wax yaay yépp jur xale yi yépp yépp mooy seen yaay mun naa ne daayira bi ñu nekk ñi fa nekk ñëpp ci ci ay jeunes moom mooy seen yaay ndax taxawu taxawaayu yaay bi muy taxawoo nit. mu nekk sama yaay sama yaayu daara mu nekk sama xarit waaw mu nekk nit ku baax mu nekk nit ku généreuse mu nekk nit ku dëggu mu nekk nit bu sincère mu nekk nit bu pas-pas nag macha allah waaw nit bu bëgg njabootam nit bu bëgg nit aussi nit bu nite tamit. waaw une dame de fer femme bu am personalité ak présence macha allah yal na yàlla lafal ko cet làq ka fa mu làq boppam barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu barke kilifa nit bu nit bu simple nit boo xamante ne ni dafa dafa dafa wàccee boppam nit bu nit nit bu bëgg nit nit boo xamante ne ni moom pour moom lu mu am rek nit ñi ñoo ko moom sama yaay lu ne ci loxoom rek nit ñee ko ci bàyyi yàlla xam na ko lu mu am bokk ko nit ñi. bu ñu nee diw baax na dañu naan ndax mbokk yee ko wax waaye dëkkandoo bu yàgg day mujj doon mbokk rawatina yi Ibrahima Ndiaye fanweeri at a ngi nii mu dëkk kook soxna sii di Ndeye Sophie Camara muy fàttali jaar-jaaram ci wàllum politique rawatina taxawaayam ci seen biir daayira loole bokk ci li ko may li mu am tey dëkkandoo ak wëllëre ci Ndeye Sophie Camara madame le maire di première adjointe bu maire bu commune des Parcelles Assainies ah, Ndeye Sophie nag mën nañ seede ci moom lu bare ndax yàlla ngi dogal ah, suñu relation ak moom depuis na trente ans ndax bi mu jógee grande Dakar dëkk si parcelle ñoo dëkk yàlla def tamit ñu bokk benn section ci daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidat waaye tamit ah, ñu bokk benn parti muy parti de l'unité et du rassemblement pur yàllaa ñu dogal moom mu am ci parcours bu am solo ndax en 1998 bi ñu créé parti bi dañu créé ay cellules ay cellules de base ñun ñu amoon cellule unité moom moo jëkk a nekk suñu présidente euh, taxawaay tamit taxawaayam tamit ci parti bi moo waral bi ñu relancé waatee liggéey bi en 1900 en 2016 2017 Euh, ci waajtaayu élection législative moom mu nekkoon investi ci euh, ci liste bu parti de l'unité et du rassemblement nekkoon ci liste nationale nekkoon ci position euh, vingt sixième position donc kon da ngay gis ne moom am na parcours ci biir parti bi yàlla def tamit ñu ñëw coalition Yewwi Askan Wi ñëw sunu parti nekk membre ci biir coalition bi ñu ànd dem élection Euh, locale am ndam ak le maire Babacar Jamil Sané waaye taxawaayam toujours ci biir mbooloo mi moo tax euh, mu nekk premier adjoint au maire. ku am ay dina ñu nangu ni am na ay défaut waaye Ndeye Sophie Camara Khoudia Ndiaye ak Ibrahima Ndiaye ñoom ñaar nangu ni nit ku dëggu la ba noppi oyof du jàpp mer boo ko xamut mën nga koo dëkkal fi mu dëkkul. ah yenn saa yi nag ku ko xamul da ngay da nga yaakaar ne kii ku tàng la parce que suy wax dëgg moom du ko raay day jaar ci digg bi waaye nag su ci paree pare na ci amatul benn problème ak yow waaye nag su la bëggee wax dëgg moom munoo fexe ak noo toll ba du la ko wax comme loolu. Euh, dëggu maanaam dëggu daal seet nañ ko ci moom. su amee lu ko metti lu wax ndax moom dafa ragal émotion parce que wax naa la sànq nit ku dëggu la sooy wax loo xamante ni dëgguwul moom dina taxaw ne la carrément lii ak lii wala li nga wax du nii nii la dina la wax daal ba ba bu ngeen paree te du la frustré dina wax ak yow ba nga xam ne yow mii kii lim lay wax nii dëgg la bu ngeen paree après ngeen àndaat du du du tongoo ak nii ay mere mere nit nii non ba tax na Ndeye Sophie Camara ay ñoñam moo xam njabootam ak i dëkkandoom li ni mel lañ koy ñaanal. ndey su fi nag dañ koy ñaanal rek yan bi yàlla na oyof yàlla na ko mag ñi jàppale ndax tamit ku fonk mag ñi la koo xam ne tamit wax dëgg yàlla am na diine am na lislaam Euh, ku fonk tamit euh, ay way juram ndax yooyu yëpp seede nañ ko ci moom mais aussi ku bëgg Parcelles Assainies waaw ndax fu mu mënti nekk rek parcelle moo ko gënal parcelle moo ko gënal ndax euh, daf fi yàgg lool te tamit nekk koo xam ne tamit combattant la daal bég nañ ci trop ñun ñi nga xam ne ay àndandoor la ñu woon démb ak tey Ndeye Sophie ñu ngi koy ñaanal bonne continuation. yaay xam fi nga bëgg a ci sa mission yaa xam fi nga bëgg àgg ci sa mission encore une fois de plus yaa yal na yàlla woyofal sa yan ci suñu barke kilifa yaa yal na yàlla leeral sa yoon ci suñu barke kilifa yaa yal na la yàlla taxawul yal na la yàlla kàttanal ci barke góor gi yaay lépp lu ñu lu fa jox incha allahu rabbi yaay yàlla na nga ko def ci dans les règles de l'art te nga am ci ndamu biir ak ndamu ci nag te ndam lépp di ndam suñu kilifa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy hafizahullah way dawara mu doon taaw njëkk juddu njëkk baax fees plaasam uuf ay rakkam ba noppi njabootoo bépp doomi aadama rawatina ñamu bokkal daayira mu doon doom ju ndayam gërëm doom ju baax la doom ju yaru doom ju am diine doom ji bëgg waajur ku bëgg a mbokk bëgg ay magam bëgg ay rakkam bëgg na ñëpp famille bi yëpp la bëgg bàyyiwul kenn di xaritu maam di ay xaritu tantam ñëpp la bëgg bëgg na ay rakkam bëgg na ay magam fonk na ma yëg na ma suturaal na ma ni ma ay magam suturaale noonu la suturaale ndax ndey ndaw mooy taaw seen bu jaañ topp si mu topp si waaye nekk na doom joo xam ne daal dama koy ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér di ko ñaanal ñoom ñëpp di ñaan si kàttanu yàlla yonent bi seexal xalifa mu yaakaar fu mu bëgg a yegg yàlla ko fa yàlla yonent bi yeggale dama ko sutura ànd àdduna ak laaxara sonn na si pour papaam feebar na tëdd hôpital mu sonn si moom ba yàlla def la si gën mu nekk doom bi neex a tiitaroo kon nag dama koy ñaanal yàlla yal ko yàlla ca yal na ko cat seexlu yal na ko yàlla def mag te def ko mag mu am lislaam nga xam ne lislaam de sa fi foo ko fekk rek mu ngi si daayira rek mooy kiyam àddinaam yëpp daayira bi la su fi gore na yiw na yaatu na tabaar fakkaala macha allah ay rakam sant nañ ko ay magam sant nañ ko jërëjëf ñu leen di ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér waaye maa ngi leen di yàlla fan wu gudd ak wér. Afia FM. waaw waxoon naa la ni la man Moustarchidati la yàlla moo dogal doomu maam laa aussi. ma dégg ko mu bokk na tey ci émission bi lu ma gën a neex. àddina dégg ni Ndeye Sophie doomu maamam la. mu jigéen ju baax. jigéen ju sonn ci man. jigéen ju ma taxawu. jigéen joo xam ne peut su ma bëggee wax ci moom damay yàq émission bi waaye lépp loo xam ne forger na ko rek wala mu jaar ko ak man am na lu mu bëggoon et c'est dommage que fekkeewu ko kon dama koy ñaanal yàlla yàlla jéggal ko yàlla yàttal bàmmeelam leeral ko moom jullit yépp waaye Belinda man mënuma def dara ci àddina lu dul ni damay delloo toujours njukkal sama kilifa ndaxte nag dama bàyyi lépp bugguma dara demuma fenn lu dul ci ëttam ngir yàlla dafa am lu ma fa yaakaar li ma fa yaakaar mooy nekk une femme moustarchidate mais aussi nekk une femme musulmane boo xam ne ku ma gis dangay gis reflet sama kilifa ci man mm-hmm. li ma bëgg yëpp nag amaguma ko waaye maa ngi jéem mm-hmm. bu delloo ci wàllu parti ak politique waxoon naa la ni sudul woon moom duma def politique mhm. ne woon naa la aussi ku sa kilifa jug te juguloo sa fayda des na mhm. yàlla dogal bi mu jugee nag amatuma droit tëdd parce que daf ma lebal loo xam ne mënuma ko ko fay waaye kon fu mu teg tànkam ma jéem a teg mhm. bu teggee ma jéem a góorgóorlu looloo ma def la femme mu Sarchida tey ba ma nekk la femme politicienne et je suis devenue la première adjointe du maire des Parcelles Assainies Djamil Sané Mm-hmm. je de passage. Mm-hmm. nit ku baax nit ku am yéene. nit koo xam ni soo ko gisee dinga xam ni li nga yéene ci sa parcours politique. Mm-hmm. yàlla mun na def sutura suñ ci àndee. nit ñi xam ban yéene lañu am. waaye wax naa ni man ak moom yëpp parcelle moo ñu fal. kon ñun dañuy njukkal parcelle. di ñaanal yàlla parcelle yaakaar bi ñu am ci ñun ba fal ñu ñu gis ci lu ëpp seen njort. liggéey parcelle rek lañu bëgg. Mhm. ne woon naa la que le maire sortant n'a pas démérité. Afia FM. waaw loolu nag c'est tellement naturel chez mhm. euh, su ma gisee barki démb bi may dem ci Barthélemy danga naan est-ce que c'est elle la mhm. waroon nga gis photo yi ba nga xam ni man li may def dama ko gëm loolu lay dund. je suis nii ma soloo nii tey noonu laa mën a solee peut-être short rek laa ñemeetul sol. ci kaw réew ci biir réew mi. mais noonu laa mën a solee lépp lu ma bëgg sol su ma def xoolee tuuti rek nga xam ne kii c'est une femme mais une garçonne manquée. Mhm. loolu la ma yàlla nattu peut-être ci deret bi la. Mhm. xëy li mu judd ci ëtt champion moom moo tax ma mel noonu. Mhm. wala nga xam ne yàlla ma bindee noonu rek. mais daal xam naa ni li ma bëggoon la. parce que wax naa la ba 3 mois de grossesse ci sama taaw maa ngi football. Mhm. football ku ko bëggoon laa. Mhm. léegi nag defatuma dara. defatuma dara je comme je regarde mais defatuma dara parce que xam naa ni lu ma waroon def la bi ma nekkee xale bi mu ci paree pare naa ci. Mhm.